assemblée nationale saa su ko neexee ak ni mu ko neexee ak kañ la ko bëgg ak na mu ko bëggee ak na mu ko taamoo loolee nag catastrophe la te loolee jaaduwul te kenn waru ci ànd ndax loolee baaxul ci réew mi baaxul ci démocratie kàddu duudu wàdd la ndax nee na bu njëkk assemblée nationale bu ñu ko taxawalee dina dem lu toll si ñaari ata njiitu réew mi doog am sañ-sañ ngir nag daal di koy tasa léegi nag loolee na ñu bëgg a soppi maanaam assemblée bi président bi daal naa toog daal waaw xool ba mu ko rek mu jekk-jekk jël xalimam daal di génn ab décret daal di Doudou Wade ne loolee yomb na loola Assane Samb ci biir journal bi nee na nag lii bu ñu ko defee maanaam giraawaali gi nga xam ne moom lay doon ak njombe gi doy na waar te nag bu boobaa cohabitation duutul amate ndax assemblée nationale bu ñu demee ba opposition bi ak pouvoir bi bu ñu tolloo doole président bi jël ab décret na tasal ma assemblée nationale bu dee opposition bi moo ëpp ay député président bi jël ab décret na tasal ma assemblée nationale loole nag lu anti démocratique la loole bokkul ci démocratie waaye sax bu passé ñàkk bokk ci démocratie maanaam lu dangereux la jàmbaar la ci réew mii di Sénégal te nag loolee amul benn proposition boo xam ne amoon na ca dialogue national ba député yi nga xam ne ñoo bokk ci opposition bi ak député yi nga xam ne ñoo bokk ci pouvoir bi ñoom ñëpp ñoo war a lànk ba tëdd sa naaj waay ci lii nga xam ne moom la Macky Sall bëgg te nag lii bu ñu ko defee maanaam assemblée nationale ci boppam la ñuy sànk te nag assemblée bi bu ñu waxante dëgg maanaam dootul amati benn njariñ benn solo dootul tekkee di dara assemblée nationale te nag loolee député yi ñoom seen bopp ñoo a taxaw lànk ba tëdd sa naaj wa kaddu yu Assane Samb journaliste ngi ci réew mi quotidien yéen kay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas li am ba de sàll député yi ne leen leer na ñoom seen bopp ñooy jàkkaarloo ak seen bopp te nag nañu jël seen responsabilité yéen kay gi di Rewmi Quotidien nee na ay jamono Aminata Touré ak ñu baree baree bare ñu si mel ni ñoom Ousmane Sonko waxoon nañ ne dialogue national bii ab dil la ab dil boo xamante ni moo dox diggante nguur gi ak ñenn ci opposition bi waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy waa PDS du samay kàddu damay nettali waa Rewmi Quotidien ñoo xëy bind ko yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu bu ñu waxantee dëgg mooy gis nga gis nga gis nga député yi nga xam ne ñoo bokk ci taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ak wàllu Sénégal ñoom seen bopp tey ji dañoo nar a xaru de yéen kay gi ñu xëy fekk a Guy Marius Sagna nee na Macky Sall bëgg-bëggam mooy boole élection législative yi ak élection présidentielle yi loolee Macky Sall daf koo bëgg couplé moo tax mu bëgg ñu daal di modifier article 87 bu constitution bi yéen kay gi di réew mi ko di jee nee na nag gis nga bu boobaa maanaam élection présidentielle 2024 mën nañu koo dàq waaw mën nañu koo dàq ndax Macky Sall bu boobaa mën naa wax ne élection législative ak élection présidentielle 2024 dañu koy boole te nag bu amee possibilité ñu boole ko bu boobaa danañu mën a dàq élection présidentielle 2024 Thierno Alassane Sall moom nag nee na maanaam Macky Sall ci boppam génn na ci troisième candidature waaye génnagul ci réew mi Macky Sall bàyyeegul pouvoir bi waaye nag man Thierno Alassane Sall en tant que député du ma ko voté benn yoon ndax nag loolee baaxul ci réew mi journal bii di leen foo na ñi nga xam ne ñooy député yi woo nañu leen député yi woo nañu leen ngir nag ñu daal di freiné Macky Sall la nee na tey jii la ñuy yeewi Khalifa ak Karim Meïssa Wade tey ji la ñu leen di yeewee yéen i gi di réew mi ko di ñu xëy fekk fana fi sadd nee na nag jamono ji jot na ngir réew mi ñu jox ko jigéen ñe yéen i kaay gi da la ko di jee yor yora nee na élection présidentielle 2024 dina am lu ëpp ñaari million ci ay doomu réew Sénégal yoo xam ne dinañu leen tere ñu voté yéen i kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum candidature benn bokk yaakaar Macky Sall tukki na waaye Moustapha Niass la dénk mbir mi ndax nag ajjuma ba léegi kàngam yi nga xam ne ñoo ngi ci APR bëgg a nekk candidat Moustapha Niass déglu na leen ku ci mel ni Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam la ñu koy dégloo maanaam ni ko suba Abdoulaye Wilane nee na parti socialiste mosut a jox carte blanche ki nga xam ne mooy Macky Sall kaddu yi Abdoulaye Wilane la nee na waaw parti socialiste mosul taxaw ne Macky Sall yaa yor sa cëgul guy tànnal ku la neex tànnal ku la neex ñu daal di koy jiital Abdoulaye Wilane nee na loolee parti socialiste mosu koo wax ki nga xam ne mooy Macky Sall maanaam ci gàttal parti socialiste mos sa jox push ki nga xam ne mooy Macky Sall ngir mu nag tànnal leen yéen i kaay gi de alerte ñu xëy fekk fa Malick Fall mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon directeur du fonds de solidarité nationale moom nag choix mooy Amadou Ba ngir nag ñu daal di koy jiital yéen i kaay gi de le quotidien yor yora nee na concert de casserole yi nga xam ne Ousmane Sonko woote woon na ko samedi ji nga xam ne moom la ñu génn man na la dëkk bi riir na dëkk bi riir na waaye nag bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo jël coupe bi mooy ñi nga xam ne ñooy waa Thiès waa Thiès ñoo jël coupe bi journal bi de le quotidien yor yor moo xëy di ñu ko xibaar yéen i kaay gi de la témoin naan ko nag foo bàyyi ñi nga xam ne maanaam ñooy waa mbuur ndax nag mbuur ñoom tam yëngal nañ ko ba maara détaillé journal bii di Vox Populi nee na du mbuur rek waaye tamit du Cees rek ndax fi nga xam ne mooy Rufisque foofee yëngu na Kër Massar Parcelles Assainies Malika Grand Yoff Dakar Ville Pikine autoroute à péage bi klaxon yi mel ni tulleeg male journal bi nee na bëri nay gox yoo xam ne concert de casserole bi doon ñu ko fa amal fu ci mel ni Mbuur waaye fu ci mel ni Mbàkke ak fu ci mel ni Kaolack université Gaston Berger université bu Bambey foofee yëngu na journal bi nee na yokk ci Tivaouane waaye tamit da nga ciy yokk Ziguinchor yéen kaay gi nee na Ousmane Sonko moom nag ci boppam nee na bi nga xam ne moom la ñu bëgg jamono ji daal amul kenn koo xam ne mën na koo daal di tere waaye nag kontaan naa bu baax a baax a baax man Ousmane Sonko maanaam ci génn bi nga xam ne askan wi génn nañu ko ci concert de casserole yi l'observateur nee na lu jëm ci wàllum Barça wala Barça xëgee mbir mi doy na waar lool ñi nga xam ne ñoo ciy faatu bëri nañu ñi nga xam ne ñuy waa Rufisque na seeni doom yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci biir ndox mi journal bii di Vox Populi nee na guy Murita lu toll si juróom-ñett ci seen ndaw ñoo xam ne faatu nañu ci biir ndox mi yéen kaay gi di réew mi di cee xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw succès bi nga xam ne am na ko ci corridor si dix-septième édition bi président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES altine ji nga xam ne moom la ñu génn ba ma ngi amal tournée internationale di remercier ñi nga xam ne ñooy ay partenaire am ak collègue am nga xam ne ñoo nekk ci MEDES jaar na Paris jaar na